seen revue de presse Master Office ngir bépp jumtukaayu bureau. yéene kaay yi ñu ànd ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf bu ma rek dina bari ñu dul xam ka may wax faaw ma teg ci Bécco Cuun Bécco Cuun Maajoor Cuun la tudd observateur mi ñu ko xëy xamal xëy ñu wax lu bari ci Cheikh Bécco Cuun ubbil yéene kaay bi Cheikh Bécco Cuun doom ci kuli Cuun ak Bambi Càmm nga juddoo ca kër Sàmbalaw be ga nekk ca Mbuur fa ko turu Bécco toppee moom Maajoor Cuun moo di bàyyam mu amoon benn xarit bu jege woon lool buuru Waalo te ca yooyu la jamono kàngam yi nga xam ne dañoo jege woon baraak di buuru Waalo turu Bécco lañu leen leen di jox sës gu ñu sësoon ci buur bi nga xam ne boo noppee ci ñoom rek yegg ca buur ba moo taxoon jigéeni wàllu yi jëloon séeréer ñu doon jiital tudde leen ay becco ndax sës gu ñu sësoon ci ñoom ca ñooñee waroon barak di buur ba ca wàllu kenn ca ñoom ñu naan ko becco major moom la kuli cuun bàyyi cheikh becco cuun tuddee doom ja journal bi nañu fii la turu becco wiy jugee ak ndawam moom cheikh becco cuun yéenekaay bi nañu xamu ci dul saa yu xëyee ànd ak magam ji di gille cuun ñu gàddu seenu gopp dem ca tool ya bàyyi li seen bàyyi noonee la ko jàpp ba muy dem ca tool yi bàyyam ya nekk ca taset ga nekk ca diwaanu gis benn saret buy dem Cheikh Béthio Thioune sànni gopp ba topp saret ba di daw ay xel yu metti daw ba mu yàgg saret ba taxaw Cheikh Béthio Thioune yegsi fekk Serigne Saliou moo nekk ca kaw saret ba waaja doon dawal saret ba ne Cheikh Béthio Thioune nuyoo la kii Mbàkke la sant yéene kaay bi nañu te noo ne la Cheikh Béthio Thioune xamante ak kii di Serigne Saliou Mbàkke Cheikh Béthio Thioune doon nab jàngalekat ca Casamance jot naa ñam kaso ci jamono ji Léopold Sédar Senghor jiite mi moom Léopold Sédar Senghor ko génne ci kaso bi ci atum 1987 ca la Serigne Saliou Mbàkke yónnee benn waay bu ñu naan Serigne Gorotin te Cheikh Béthio Thioune ne ko demal boo demee nga xamal ni Cheikh Béthio Thioune man Serigne Saliou Mbacke seexal naa ko def naa ko cheikh yéen bi nañu ba waaj a dikkee wax ko Béthio Cheikh xamul lan la ab cheikh di tekki ca la solu dàllam topp waaji dem ba ci Serigne Saliou Mbacke laaj ko lan moo di cheikh Cheikh Saliou tojal ko ko tegal ko ci ne li ma la defal yàlla rek moo ko xam ku xamoon Cheikh Béthio Thioune jamono jamuy nekk ca ENAM mi ngi ci observateur mu di Ousmane Tanor Dieng Tanor nañu ci bi maak Cheikh Béthio Thioune bokkuñu woon classe ndax maa ko jiitu woon ca l'école ba waaye kenn gënu Serigne Saliou Mbacke daf daan dem sax bay wax naan sama réussite ci l'école bi Serigne Saliou Mbacke moo ko def a demoon nañu seeti Cheikh Béthio Thioune nuy ju yeesal seen njëbbal ña jébbalu ci moom di cantaakoon ya juróom fukk ak juróom-ñaar ci ñoom tey ji danañu janoo ak siis bi enquête yéen kay nañu feebaru Cheikh Béthio lekk cuun gi avocat yi di wax ne moom la cheikh bi di sooxale ba tax munta yàgg ci kaso bi feebar boobee parquet bi gëmu ko ku ko gëmulit mooy dëgg ñaar fukki dossier ak ñeent ma ngay tege ca taabali ministre intérieur ñoom ñëpp seeni borom la bëgg moo di doon ay député ci wotey législatif yi maanaam liste déposé nañu ko wal fajri nañu listub législatif yooyee doxul ci Macky doxulit ci Abdoulaye Wade ñoom Abdoulaye Wade di waa parti démocratique sénégalais la ko moom la ñu def tête de liste nationale enquête nañu waaye terewul moom sa kër ma jabel caafa ngay bëgg a ca këram ndax kii di bàyyi na gedd na génn ci AFP la nañu wax ji des na ndax Barthélémy Diaz ma nekk ca kaso ba bokk na ci ñi ñu investir ci listu Benno Bokk Yaakaar gi nga xam ne moom la Moustapha Niass jiite observateur nañu coow li kay ma nga ca waa bokk gis-gis ndax jamono ji seeni gis-gis dafa waroo gis-gis ya bokkatul ndax kii di Abdoulaye Baldé gedd na Thierno Lo ak Moustapha Guirassy jàppante bu rëy la ñu fa def ba nar fa dóorante ay kurpañ législatif yi ñu déposé bari na lu cay ñuul li weex neex ci xol mooy li Macky Sall wax démb syndicat yi ko seeti woon ca feetuk travail gi ubbil la soleil lempo yi ñuy dagg liggéeykat yi weeru yàlla sàkk lempo yooyee dees na ko wàññi le soleil nañu Macky Sall moo ko xamal démb syndicaliste yi ba mu leen di dalal ca palais de la république gën ko yàgg benn fan ci weeru janvier atum dogal boobee danañu ko jëfee le quotidien nañu fii ak juróom-ñetti weer yi danañu gis ne la ñu doon liggéey seenu payoor ak yokkute ñu ne kii di Macky Sall wàññi na lempo bi le soleil yamu ca ndax ñi retraité Macky Sall yokkal na leen seeni pension téeméer boo jël teg na ca fukk nañu ba muy dalal syndicat yi démb moom njiitu réew mi ñaawlu na ba fa ñaawlu yam Sénégal ak nañu ko yor rek nañu fay doxalee muy yàq gu metti gu fa am ak ndàmpaay li nga xam ne dañu koy baaxee ñenn ñi ci lu tegul fenn populaire nañu démb njiitu réew mi Macky Sall ba mu waxee travailleur yi la leen neex ba noppi daf caa teg jël yat wa ndax nee na téeméer ak fanweer junniy nit yi ñu ne ñoo nekk ci fonction publique bi loolee danañu ko càmbar xool ndax dëgg laam déet maanaam audit physique danañu ko def fu cay rëq-rëq am danañu ko saafara képp koo xam ne jàdd nga yoon dinañu dal ci sa kaw ci kaw loole am na lu ma fàtte woon mu ngi ci xët mu njëkk enquête yéen a kay yëral journal bi wote législatif yi ñuy wàcc réew mi muy am benn fan ci weeru sulet atum 2012 wote yooyee am na gan oustaz Alioune Sall journal bi nañu candidat la ca